avec le promoteur X Je n'ai pas besoin de citer son nom Je partenariat ma contrat ah oui, lui, je alors biñ koy signé ci ay en bon et de forme le gars devait verser un montant de 400 millions lu ko jëmee ci Gambie ak Bercy jouer Gambie comme ni may defee Gambie def Bercy ñu bind ko mu ànd ak équipe bam ñu ñëw ñu am ay témoin mu signé alors il s'est trouvé que mu ne ma dafa ay partenaires et puis en plus fii boo ñëw génne xaalis ci banque bi il faut nga wan leen këyit bi tax nga koy génne ma ko ok mais du ma la mën a jox këyit bu ñu bind noonu que amul dara lu ko symboliser sama manager ñew ñu koy wax fantasy bi fi ci Gambia mu ñew ñu tok ñu waxtan ak équipe bu top na ci ñaari fan di daw billahi wallahi wa ta'ala après mo xol mu nek jeune bu bëgg liggéey and ak équipe bam té it ma xam ci benn jigen ko xamanteni ñu koy wax ana di dom ci Fatou ma walé japp ci amul problème bi mu ñëwé mu 10000 euros def déposite ñu bind ñu ne joxe na dix mille euros déposite mu ngi dem wane kayit bi ñu ko bindal ak partenaire mi ak banque bi débloqué xaalis bi comme ça ñu mun a am prétexte mu mun a am euh, li mu wane pour ñu defal ko virement ak sponsor yi mu wane ba ñu bindal ko ñu ni ci këyit bi ne ko nañ leen wan kayit bi léegi bu soobee yàlla man li may dafay leer ñu bindal ko ci kayit bi ne ko dans deux mois. su fekkee cent cinquante et quelques mille euros bi nga wara verser pour account Gambie verser woko contrat bi dafay nul li nga joxé dang koy perdre. mu d'accord ko ànd ceeg ay nitam ñu signé alors 2019 ñuy tok di xaar waaji tay suba tay suba tay suba waykat kat ko xasse ba teunk ne ko date bi jël naa ko maa ko alors yow penal nga ko soko ko jëlul mom nga yakal bo ma japp ñu petit waru mako ko jouer xeyna wala boy xeyna dafa ne ci trop trop legui wala sek ni na gambi ñëwati gambi ñëwati gambi ñëwati gambi lu bari yoon un bonjour jour ne la ok da nga wara ñewul fam 10000 am dix euros bu la joxoon nga rembourser ma len mais ça pas yeen ñi ñew di ma setti du gis ngeen kayit bi ñu ci bind ñina ma waw ya nek ci deug ñi fi ñewoon ñom wax loolu ya nek ci deug waye fo nga dem ba feulé wal leen wa baax na dinaa dem sérieusement parlant ne law yewu jek jek gis ko affaire bi sur la une mu graw lool ku ne di wax mais comme ma wax ak tontu ma daal di sama njàmbur dem liggéey te xam dix mille euros fu ma fekk fa la may bàyyi ma woo suñu avocat bi nekk fii mu daal di bind këyit def lépp li ko war yëkkati dix mille euros jox leen neleen léegi ok yéen ko joxe woon man Wally Ballago Seck mayaat naa leen ko te yàlla xam na ni waa jooju équipe bam ñun may seetaan bu ñëwoon ne ma ah man de maa la bëggoon tëgg waaye damaa toll ci diggante li ma joxe woon soo ma ko billaay bu ma ko ñaanee ma may ko barke yonent bi waaye nag ni mu ko defee moo xaw a ñaaw d'autant plus que on sait tout parce que fii àdduna la yëg nañ lépp yëg nañ lépp ñi fi jot a ñëw ak ñi wax demal porter plainte ak ñi ko boosteeg li xew yëpp yëg nañ ko waaye nag euh, bu yoon bu yoon jeexul wax sil du jeex man moom ab gaynde laa te xam nga you know I don't care yu bëri man du may branler bu ngeen seetloo jour soirée bi une heure et quelque du matin nan nga indi la nit plainte dirigeante de ñu la nee ko jël leen ko mu ñëw wuy si à une heure et demie du matin mel ni kuy jël si criminel mbaa reykatu nit mbaa kuy jaay lu bon c'était honte nga xam ni am na lu diis kon lu lu nekk ci suuf di ko di booster mais bon yàlla def na ci ndox mu sedd ñu jàll ci

Wally Seck demul wuy ji police dewuma fenn maa ngi fi toog noonu laa bindalee avocat ñu ànd samay kiit dem jox leen dix mille euros basta ma dem jouer sama soirée léegi ñi nga xamante ni nag ñu ngi ci ron di pousse pour yàq aidé eh, da di am gàcce parce que you know I'm strong I don't be afraid du ma bàyyi man du ma du ma ci ñi ci ñi ñuy xoqatal ñu man man coonee sama bàyyi am ñoo xam ne you know da nga reba li gën a neex nag kaay te Sénégal leen ko doo bëgg tey ñu waxtaan tuuti ci pas Wally Ballago Seck mais ci jëmm ji c'est très très important gars yi war ngeen xam ni man maa gën a ragal ci àdduna ragal maanaam bugguma gàccee bugguma ku ma yàpp moo tax lépp lu may def damay suuraale ni ngeen may gisee nii lu sedd guy rek laa bëgg bëgguma dara lu tàng moo tax du ma dugg ci dara maa gën a weex neige def làqatuuma ci je gagne bien et honnêtement ma vie alors j'aimerais bien aussi préciser que yéene ak yéwén wala tabbe bokkul ak bari lay c'est diamétralement opposé